wasalaatu wasalaam ala ashrafi xalqillah sayiduna wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashaabi alkiram wa man tabiahum bi ixsanin ila yawmi ddin mu ngi leen di nuyu tàmbalee ci kilifa yi ñu fi fekk yépp waaye tàmbalee ci way taskati xabaar yi fi ñëw di rafetlu seen taxawaay démb rafetlukaat tey di leen gërëm di leen sant ci wuyu bi ngeen xamante ne ñëw ngeen uyu ñu ko fii yàlla na leen yàlla fay ñaanalit Seydina El Hadj Abdoulaye Thiaw Laye mook jullit yamu fekk fa mu nekk yépp yàlla na ngërëmal yàlla jiitu leen foofu ak njëgalam ki fi toog di sëriñ Mouhamadul Mokhtar it moom it yàlla na ko yàlla dëgëral jàppale ko te ngeen it jàppale ko bu nu egsee fii lii diine la diine nag ci suñu réew dafa am tradition dafa am ay kër yu yàlla baaxee màggal leen te kenn fekkewu ko mooy këri diine yi ci réew mi te fii ma taxaw nag kee ñu jàkkaar loolu muy Serigne Ablaye na mu ko daan waxee fu ne am naa fa chaise bu mu toog moom dafa gisoon na ummal islaam yu ummatun waahida wa muwahada looloo taxawaay boobu rek ñun loolu la ñu am kon nu ngi nuyu sunu kër këri diine yi ci réew mépp fu ci xalifa nekk ak fu mu ne yàlla na la yàlla ngeen ña topp ca yawit yàlla na ngeen teer yi ba nga xamante ni moom la moo taxoon mag ñi taxawal lii xeexal yàlla diine ci réew mi bu si des mooy njiitu réew mi di président Macky Sall mooy les institution de la république lii mu ngi bëgg a yàgg te bu ñu masaan egg see feet ñoom ñu taxaw ci rawatina moom taxawoon na démb tey la gën a taxaw kon lañ ko gërëmoon démb lu ko rew lañ ko gërëme tey moom it yàlla na àgg li ko réew mi dénk yàlla na teere fi neex sénégalais yépp te lépp di xéewal ci ñëpp ci kaw loolu ci lay jaar li réew mi am ci nit ñu baax moo xam les partis politiques la société civile les syndicats le patronat les mouvements de jeunes comme les mouvements de ñëpp nu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp ci ñi nga xamante ni ñooy suñuy imam ci gox-goxaan yépp ak ñi nga xamante ni ñoo toogal xalifa xalifa bi ci ci dëkk yi suñu chef de village yi ak ñëpp mu ngi leen di nuyu ñëw ci groupement central groupement central damay wax ni mooy administration wu diine depuis 1952 ba tey fas fa tabaarakallaahu ñoo ëmb lii nag ah leen fi toogal mu nga ne alaaji jaaju ak ñi mu àndal ñoom ñëpp nag la fédération des daayira defe naa ni depuis 68 ah alaaji njin aada ak ñàkk àndal donc loolu da di ay yu nga xamee ne ak les mouvements nag affiliés mais ah dañoo ñëw dugg ci ci mbir mi mu yot waa commission d' administration ah de l' defe naa ni gars buñ ci egsee taxawaay beeg yëngatu yi ñoom ñoo ko yore et tayit maître d'œuvre gis defe naa ni c'est et la commission scientifique parce que ñooy introduire thème bi kon bàyyi ji ngi nii toog ak njaboot geeg ak gaay ak yëpp fi ñuy ñëwee mooy diaspora laayeen bu ne ci àll bi ñoom it ñoom taxawaay ñu ngi leen di nuyu am nañu taxawaay ñu ci bari dafay innovation même ci seen dëkk yi ñu nekk am fay taxawaay mais dañoo dajewaat ñoom itam diine jër lu diini ji yëngu xale yi ni ci biti ñu ngi koy def ci lu baax fii kon ñoom yàlla na leen yàlla taxaw tëjee ci la communauté bi njaboot gi fi ñu nekk fépp gërëm leen sant leen téye leen c'est-à-dire la communauté layène partout fu ñu ne ci réew mi nu ngi yeesal sunu cant sunu nangam jële ko nag ci xalif général bi ak ñun ñi ñëpp. gën a yeesal sunu cant ci ñoom ak sunu ngërëm yàlla na leen yàlla fay pour e bañ a sori thème baa ngi nii seeni borom dee mais man am naa lu ma ciy wax le rôle de l'éducation dans la lutte contre l'extrémisme du ñun defe naa ni warul a bees ci ñun ñun defe naa depuis fii lañu tàmbalee tudd nañ fay dëkk duñ ci ñëw donc atatarruf ñaar moo am terrorisme ak extrémisme danoo jigiñ te bokkuñu loolee al amnul fikri la sécurité intellectuelle moo ne fële parce que muy usine ba ñuy togge xalaat yi moo tax xalaat bu nëbee rek te dëgërul lu ne mën na faa dëgër moo tax dañuy war a sécuriser nit ki te loolu nag bu ñu nee sécuriser nit ki xam ak xamle ak yar ëpp na ca solo muy benn lay mottali loole nag muy al irhab terrorisme mooy la parti pratique b c'est la théorie parce que fële la ñuy tabaxe nit ñi fa lañ leen di endoctriner fa lañ di nangame nangame nangam la ca des nag fee nag fa ngay pratiquer la nga yor kon li ci mën a dégg rek nanu fexe ba defar nit ñi mais ci jaaral leen ci wàllu yar Seydina Limaamu mi ngi bi waral bis bi dafa wax bu am solo bu mu wax bu ngeen demee ci xutbaam da ngeen di dégg usikum bil iyaal maa ngi leen dégg njaboot gi ba na mu teere ba mu ñëwaatee ci wàllu yar ku ne gis na la mu ci wax bis bi ñu ñu wax ko inna haza waliduna lam yu addib naa walam yu allim naa mu ni shay'an min kitaabillah sunu waajur a ngi nii yàlla yarunu xamalunu la xam yarunu xamalunu te li ñuy génn ci lu mel nii yar la ak xam moom anticiper na ci li war a am moom la bàyyi laay jëkk wax ci làngam démb yonente bi addabani rabbi fa ahsana taadibi dellu soit ni addibu awlaadakum wa ahsinu asmaahum kon yar nag suñu koy wax déedéet du ci nii ay am nay spécialiste am nay des établissements yoo xam ne yaakaare nañ ni fan nu yare mais la cellule familiale am na ci solo lool mais li ci ëpp di solo mooy c'est l'État qui incarne et la force publique ak leneen donc loolu lépp fii jamono tollu tey ñoom bi xal bi njaboot gi di xalaat li lépp nag ci cadre parce que diine fiñ ci gaa yi bëgg jëme li ñuy ragal mooy obscurantisme ñun bu ñu taxawee ak yéen gaa yi di reyante guddi ñu bëgg a xooli malaaka di ñu xool nit ñi dañu di sonal rek dafa am loo xamante ni da nga koy bàyyi ak seeni borom spécialistes yi daañu cee wax ak ñeneen et ña nag ca wàllu nguur ak nañuy sécuriser ak nañu xam ñoo ko xam mais li wóor ku ci nekk dafa war a jël responsabilité am ci nangamam balaa ñu lay këf këf li nga yor te loolu nag li la koy may nit ki na am diineem ba pare mais am ouverture kon li ñuy wax la sécurité intellectuelle balaa ngay ñëw ci loolu nañu defar nit ñi ci seen bopp ba pare wax leen bu dee ci waaraate nga waar leen parce que problème bi am léegi ki lay waar waaruwul ki la bëgg a xamal bu xamul nag ma fi donc loolu lépp ñu bàyyi ko xel ñaar ñi mooy nit ki day am lu mu def ci poosam ci la moom nit al al amnul ghidaa yi tey ku wax nii et comment dirais-je la sécurité alimentaire or ñaar ñoo ñooy ànd ku def ku amul loo def ci sa biir mënoo sëgg di julli ku amul loo deful ci sa biir mën ngaa rey ku ne. ku ne lu ne lu ne lu ne eh, ñaar ñi nag ñooy ànd ba ñu defaree nangam bi ba defar sunu ngëm ba defar sunu dañuy ñaan yàlla nag ah wala liggéey te jëfit war a am lu mën a sange loolu sàmmoo loolu mais nangamu kese téewri kese yorul dara donc ñaari ñooy mën a ànd ngeen xoolee rabbi ija mu ni baladan aminan warsuq ahlahu min a samaraati bi suñu maam Ibrahima ñaanee ñaanam gu rëy gi ñaan na yàlla sécuriser ka màkk ci ñeneen ak ñeneen yëpp waaye dafa ñaan ci sécurité baat yàlla wàcce fa lu ñu def ci poosu gaa yi kon ñaar ñooñu rekk ñooy mun a ànd ñu war a mën a nag am une société équilibrée et ba nga xamante ni ku ci nekk moo ci war a mën a nekk mais dama bëgg wax ni rek bu ñu bëggee wax ni extrémisme fu ci ne ak leneen dañ koy jàngat càmbark spécialisté ku ci ne fa sa xam-xam màccoo ñu war ko faa war a mën a teg parce que bu demee rek iyaakum wal xulu fi din lu ëpp tuuru ci fanatisme li tax baaxul mooy ni yow yàlla dalay jox xéewal nga toog ci digg xéewal ga te doo ko gis ki am problème mu mille francs toog ci bérébu un milliard te naan yàlla may mën a seet boppam yow problème 1000 francs nga am toog ci bërëb boo xamante ni sa xam-xam sa intelligence ak sa nangam mën na laa jural lu ne mais nga taxaw fa yàlla may ma te yaa ngi toog ci milliard kon yow sa bopp moo nëb loolu réflexion la naka ñu bëri yóbbu et eh, li ci des pauvreté du principe général ci l'islam wa wajadaka aayilan fa agna da ca bokk maa nafaani maalun ka maali abi bakar yante bi nee na amul alal ju ma gën a jariñ lu dul alalu abu bakar kon ngeen xam ni li sëriñ Ablaay mii yàlla yàlla yokki leeram daan wax naan gaa yi ñaan leen xaalis wax la mais ku tiim xale yi ngal leen pauvreté gàngal pauvreté mooy jël sa o askan di def ci ñoom ay discours yoo xamante ni vraiment yi tardeel ay nit la ay nangami nit la malaaka yi nee nañu nangam nee nañu malaaka yi roboo lañu <laughs> yow da ngay nelaw di macha Allah di biddanti kon gars yi li ko yor mooy ginnaaw ba ñu xalaatee suñuy xalaat rafet ñu nangoon a produire liggéey pour mën a taxaw nii yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da daan ñaan ni muy daan ñaane koom ko ni mu daan ñaane koom-koom noonu la daan ñaanet yàlla may ko ragal yàlla kon ñaar yëpp la boole woon kon fi may tëje ci gàttal gaay li ëpp solo mooy al amalu saalix jëf ju rafet moo war a mën a jur ay jeexital yu rafet sunu boroom mun ngaa def transfert ay monnaie ceci yow la waaye sunu boroom du jël mukk jëfu ku baax transfert yi ko jox ko keneen abadan man amila saalihan mu ni fali nafsihi wa man asaa fa wa ma rabbuka bi salaami lil abid kon nu yàlla mën a jëlee jëfi ku baax fayete ku ko jëful mën la am tatim xool leen ko ci yonti yàlla yusuf innahu man yattaqi wa yasbir fa inna allaha laa yudiru ajra al muhsinin ku jëf te muy lu sell lu rafet war ngaa mën a yaakaar lu baax innahu man yatihi man yati rabbuhu mujriman fa inna lahu jahannamu laa yamutu fiha wala yaxa wa man yati mumin qad amila salihat kon jëf ju rafet rek mooy yóbbu ku ne fa ngay nekk man jaa bil xasana fa lahu asru amthaliha wa man jaa bi saye fa laa yusa illa wa hum laa yuslamun kon gaa yi inna lazina amanu wa amilu salihat ulaika kon dama bëgg ngeen xam ni lii ñu tënk ci gàtt lépp dañ koy delloo ci njaboot gi fii ma taxaw taxewuma fi nii tariqa nii nangam lislaam moo ma fi tëral ma taxaw fii tey lii ma taxaw di wax ci ummal islaamiya bi la ñu bokk ci lañu bokkit bokk dëkk nag réew mu tudd Sénégal am fierte lool bokkat feet amit fierté jëggaaniwu ñu diine am nanu ko ku amul diine seetal sa bopp kon muy wax ni lii jàmm liy teraanga liy gàtt nga yàlla ne doon lu baax xawma lu nu amul ci sunu réew mais yàlla dénk nañu ay nit ñu baax yàlla may nañu ay kilifay diine yu baax waxuma la nag man ak nun problème de génération la waaye nanu am courage bu day nii ku ci ne nga war a mën nu dunde sa citoyenneté bu làqu rek ci sa ginnaawi maam toog fa di consommer la nu yor te doo produire amul bi ci des diine xam adduna xam ñoom ñaar ñëppit xam-xam foo nit ñi def loolu seen bopp kon communauté bi laa nii ci kii fi toog de Seydi Mouhamadul Mokhtar moom it yàlla na yàlla dëgëral ko jàppale ko bu baax a baax a baax Eh, benn génération la bu fi ne yaakaar nañu ni ci mbaaxu yàlla mag ñi li leen war def nañu ko suñuy waajur li leen war def nañu ko ci ñun bi ñu waree sonn sonal nañu bi ñu waree taxaw taxaw nañu toog nag di seet naan anu sama déedéet duñ ci fekk ku ci ne na na nekk sa bopp rek ñun foofu la ñu toll di leen ñaanal yàlla di jël message bu nga xamante ni nag appel bii nu jublu ci mbaaxuk yàlla na mu daan demee dañ ko nangam dañ ko partagé wu te mos nu cee jóg ak réewum Sénégal ak suñu kilifa yu baax yi ak ci lépp nag fii ñu taxaw tey kii ci communauté bi communauté bi du bokk ci ñuy toj di xotti tissu social wu Sénégal dañuy bokk. ci ñi nga xamee ne dañ koy taf la ilaha illa allah manoo kaa yore te muy xaqiqatan ci yow nga nekk ci ñàll yi di wax weesu nañu foofu du nu yooyu kuy wax ñun téel développement fi waay mën a indi ak théorie boo mën a indi gars yi xëyuñu gont wi nangam bal yi ci mbedd mi rek kon li fi génne bal yi di fi génne nangam nag mooy nañu fexe xeex la xeexee xeex ndóol fexe fi duggal richesse xam-xam dugg lépp dugg te moytu moytu moytu am jot gu la dul produire daral yi rek moom laa am di ko wax di ñaan yàlla yàlla na yàlla defal nu tawfiix di ñaan yàlla macha allah. di feddali sama ngërëm ak sama cant ñi ngeen gis fii ñu ne sama ginnaaw bu ngeen xoolee def ci archive lu yàgg ñii rek ngeen fi daan gis kon nag leneen luy ñëw day mën a topp ci ñoom rek ñu ànd ñun ñëpp liggéey allahuma salli ala sayyidina wa sallam